dal leen ak jàmm projet bi ñu duppee PINX di projet intégré de nutrition et genre Sénégal la ñu doon lancé ci diwaanu Kolda mu di ab projet boo xam ne dina jël en charge ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ci ay jigéen yoo xam ne dañu toll ci njur ñaar fukki junni ak juróom jigéen yoo xam ne ñu ngi nampal seeni doom ak juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak ñeenti tout tànk yu toll ci fukki at ba fukki at ak juróom-ñeent projet PINX nag dina tax ba ñu gën a ñoŋal lu soxal seen wérgu yaram ci wàllu njur ak nutrition ngir jàppale jigéen yooyu ñu gën a mënal seen bopp projet bi nag Affaires mondiales kanada moo ko financé ci lu toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar ngir ñu wëyal ko ci diiru juróom-ñaari at El Hadj Aliou mooy responsable nutrition bu projet PINKS ñu teewlu ko ci micro amadu Diatta. dañoo ñëwoon Kolda comme nu ko defee si yeneen gox yi euh, région Sédhiou Kaffrine euh, Kédougou ñu ngi Kolda pour def lancement projet bi donc projet PINKS mooy projet intégré de nutrition genre Sénégal Dimbaya mu nekk turu Mandeng boo xam ne day njaboot day day fësal famille loolu day tax askan bi gën a mën a jàpp projet bi ndax euh, gox yu ñuy yëngatu foo dem euh, mandat mi fa euh, si région Kolda projet bi dina jàpp cible maanaam ñoo xam ne ñoom la ñu gën a liggéeyal jigéen ñu nekk ci ñu wonnu lor ñu toll si ñaar fukk ak juróom-ñeenti junni jigéen ñu toll si ñoo xam ne ñu ngi nàmpal mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñetti junni xale yi adolescent yi mën na nekk si juróom-ñaari junni ak fanweer ak ñeent ñoo xam ne en tout cas projet bi dina leen gën a jàppale seen mbirum wér-gu-yaram ak seen projet bi dafa am euh, ñetti composante maanaam ñetti pàcc pàcc mu njëkk mooy fekk ñu ñoŋal jigéen ñoŋal jigéen si lépp si koom si wërgeeram si dund ba jigéen en a yegg foo xam ne war na fa yegg ñaareel bi ñu ba euh, euh, jigéen mun a ba foofu fépp foo xam ne góor mun na fa toog ba wax ba jël décision jigéen mun fa toog ba wax ñetteel bi mooy askan bi ñu fexe ba wax ak askan bi si xam-xam le ba nga xam ne lépp day nekk gàllankoor jigéen ñu mun ko dindi fexe ba en tout cas fekk juróom-ñaari at ndax projet bi juróom-ñaari at la gouvernement Canada moo ko financé dépensé 17 milliards la ñu fexe ba fekk 2028 euh, balaa ñu fi jógee lépp loo xam ne nekkoon na gàllankoor xale yu jigéen ak euh, jigéen ñu toll si njur ñu mun ko saafara si seen dund si seen nekkin ak si seen ëmb ak imbi mun nañ jàpp ne Kolda am na coppike ndax projet bi bii mooy su ñaareel bi ndax phase bu njëkk bi Kolda bokkoon na si te résultat yi wax naa ko sànq ne boo gisee ñu ñëw toog fii tey am deuxième phase c'est parce que résultat yi dañ ko am dañ ko am si xeex malnutrition si xeex xiiboon si xeex euh, dund bu insécurité si xeex aussi ñàkkum ferñeent jigéen ñi ah, loolu moo tax tey résultat yooyu moo tax ba gouvernement Canada joxaat nutrition internationale une deuxième phase boo xam ne juróom-ñaarat la donc mun wax ne Kolda zone rouge la Kolda fi ne nii même bu nekkoon rouge tamit nekk rouge foncé rouge bi mun nañ ko rax léegi wala sax mun naa wax ne rose na wala mun na nekk si mboq bi fekkee da nga koy xayma si xiiboon donc mais loolu yëpp day fexe ñu mun si sukkandikuwaat gannaaw bañ doon amal journée rose ci atum 2023 ba 2027 ngir accélérer progrès yi nga xam ne moom la ñuy séentu fekk atum 2030 ngir dàpp lu ñu duppee couverture sanitaire universelle ci wàllu feebar boobile initiative phare boobu nag li mu bëgg moo di fexe ba gën a soññ ñépp ñi am wàll ci xeex bi ak responsabilité biñ ci am ngir xeex li gën a yombal tuberculose te mu bokk ci pauvreté ñàkkum lekk bu sell diabète VIH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 Bonjour chers auditeurs, lancement à Kolda du projet intégré de nutrition et genre au Sénégal PINX. Ce projet va prendre en charge 29 000 femmes en âge de procréer, 28 000 femmes allaitantes et 734 000 enfants âgés de 10 à 19 ans. Le PINX va améliorer pour les bénéficiaires l'accès à des soins de santé de qualité, la santé de la reproduction et à la nutrition pour une autonomisation des femmes et adolescentes. Ce projet est financé à hauteur de milliards par mondial Canada pour une durée de 7 ans. Elage Aliousène, responsable nutrition à PINGS, que nous écoutons au micro de Amadou Diata. Le projet PINGS, c'est le projet intégré de nutrition au genre au Sénégal, qui est un projet financé par euh, les Affaires mondiales du Canada, qui constitue une continuité du projet PINGS. Le projet nous a permis d'avoir des résultats satisfaisants et Nutrition a soumis une euh, demande au niveau du Canada pour au moins avoir une deuxième phase. Et c'est cette deuxième phase que nous sommes en train de faire le lancement dans les cinq régions cibles, que

des, des aspects socioculturels. C'est un projet qui va mettre le focus sur euh, trois composantes essentielles. La première composante, c'est l'autonomisation des femmes et des ados pour au moins améliorer leur, euh, droit à l'accès à la santé, la nutrition et euh, la santé de la reproduction. La deuxième com composante, c'est l'institutionnalisation La troisième, c'est le renforcement de comportements accrus au niveau communautaire pour au moins améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, en tout ce qui femmes et la masculinité euh, positive. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'Organisation mondiale de la santé annonce qu'elle étend la portée de l'initiative à la période 2023-2027 afin d'accélérer les progrès visant à éradiquer la tuberculose et à parvenir à la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030. L'initiative phare du directeur général va responsabilisation pour s'attaquer aux principaux facteurs de l'épidémie de tuberculose, à savoir la pauvreté, la sous-alimentation, le diabète, le VIH, la consommation de tabac et d'alcool et les mauvaises conditions de vie et de travail, entre autres. Il est indispensable et particulièrement opportun d'élargir la portée de cette initiative au moment où les partenaires internationaux se préparent à la prochaine réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose.